Sophie ak euh, Sophia. voilà c'est le monsieur qui représente Dieyla. elle n'est plus à présenter mu ngi 2STV di def liggéey bu am ah, solo ñu ngi lay nuyu bu baax. bonsoir ma chérie maa ngi lay nuyu. di nuyu waa Sénégal internet bu baax di leen ziar bu baax a baax. il faut applaudir très fort quand même être artiste de l'année. hein. je suis gagnante meilleure présentatrice de cette année. Ça, alors mesdames messieurs la meilleure présentatrice machallah donc euh, ñu ngi lay féliciter très intéressant parce que merci euh, beaucoup c'est euh, participer ci li nga xam ne moom mooy Only euh, Woman Awards donc c'est pas du tout évident ñu liggéey ba ñu am distinction ça veut dire que liggéey rek am solo donc je pense que lii dañuy gën a ñaaxaat pour ñu gën a fonk suñu liggéey waaye je pense que sénégalais yi ñoo ñu def lu doon ndax buñ la décerner un grâce à ñoom la. donc voilà du ñu def lu gën a góorgóorlu gën a liggéeyaat rek incha allah kontaan naa bu baax. depuis bi nga commencé liggéey j'espère du bii mooy sa premier prix am na benn prix boo xam ne jagleeloon nañ la ko fi est-ce que mën premier prix nag maa ngi ko jëlee au Togo meilleure chroniqueuse au Sénégal il y avait pratiquement 23 catégories yu ci bokkoon euh, ci ay dëkk yu bari donc Sénégal man lañ choisir ma dem remporter ko bii mooy sama deuxième trophée ça veut liggéey baa ngi avancé naa bu baax yàlla na ci yeneen topp. incha allah donc ñu sargal la en foo xam ne déjà du sa dëgg après nga ñëwaat ñu sargalaat dëgg ñu ngi lay félicité euh, tey xale yu ne moom la patience. Patience surtout ñu ah, rampe parce que dara xëyu rek sotti. Donc, il faut une bonne patience, il faut écouter, il faut apprendre, il faut, il faut, il faut quand même nga euh, jël sa temps mën a recueillir prérequis yëpp parce que yombul waaw il faut écouter quand même pour mën a peut-être gën ci mën a euh, avancer parce que c'est pas évident liggéey média yombul il faut nga am mental de fer pour nga mën a xam nga accueillir yu bëri donc voilà loolu la rek patience bi daal surtout ñu bañ a c'est très important Mhm. Faites votre carrière avec vos qualités. Par contre, Mesdames, Messieurs, notre bah, prochaine catégorie. je suis la meilleure. Écoutez, y, a, beaucoup de meilleurs animateurs. Donc ce sera. tous des meilleurs. Ouh, ça c'est catégorie voilà. liggéey bi la rek liggéey bi la rek c'est vous qui avez pensé donc euh, c'est la catégorie bi la rek moo tax D'accord? Donc très souvent on est là, chacun donne son avis. Cette fois, c'est vous qui avez choisi. Le public. D'accord? Et le choix du public. Ah, lan mooy sa secret comme ça ñi nga xam ne ah. ñoom ñooy ndaw ñi nga xam ne ñoom ñooy dugg ci métier bi ñuy teg tànk fi nga xam ne yow fa nga teg sa tànk. waaw discrétion discrétion surtout donc kon man maa ngi ci sëy donc discrétion moom ma war. Euh, te pense que loolu mooy sama ci loolu laay nekk liggéey wàcc am na une deuxième une nekk maman donc c'est pas du tout évident mais quand même mënul am ay baat yoo xam ne dinañ la ko sànni mais il faut être nekk une dame de fer am mental de faire c'est pas du tout évident euh, bañ a tontu bañ a gestu et puis di liggéey rek parce que boo liggéey lii moo lay fay donc soxlawul voilà. à mon très cher et doux mari monsieur Guèye sama amoore bi sama amoore bi daal laa ko jox non man moom ñooñu moom sama bos lañ moom ñooñu moom. ñoom samay nit lañ samay xarit lañ samay technicien monsieur et madame Ndiaye ils ont cru en moi euh, ñoo ma def li ma doon donc remercier naa leen bu baax a baax a baax a waaye sama jëkkër laa ko jox bu togo bi monsieur Ndiaye laa ko joxoon ak madame Ndiaye bii nag géeye ko moom. <laughs> salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi dañu seetaan man la Fatou Morgana Gueye je suis euh, entrepreneuse je suis également euh, animatrice donc docteur Niane dans la série Yaye 2.0. Euh, maa ngi animatrice radio aussi sur euh, Vibe Radio et aujourd'hui j'ai reçu un sargal de la part euh, des Only Women Awards donc je suis très fière parce que ñu ngi ci mois de la femme def nañ lu rafet boo xam ne sargal nañ jigéen ñi yëpp joxe nañ ay prix également ay nominés gis nañ fi ay actrices yu bëri ak ñu ñu xam man daal lu ñu ko defee ci mois de mars comme ni mu koy wax à chaque fois maa ngi ñaan jigéenu Sénégal yi ndaw yi en tout cas ñu gëm seen bopp Euh, parce que àdduna il faut nga gëm sa bopp pour mun a dem fu sori croire en ses rêves c'est ce qui est le plus important maa ngi remercier aussi sama euh, équipe bi ñëw tey seetaan parce que c'était très important qu'il soit là je remercie aussi mon époux Maguette Gueye qui sans lui du ma mën a nekk fii aujourd'hui et comme j'aime le dire à chaque fois euh, yaayu xale yu jigéen laa ñetti xale yu jigéen yu ndaw te bëgg naa leen jox benn àdduna boo xam ne nekk fi jigéen opportunité la voilà merci beaucoup di remercier euh, Seydou di organiser événement bi ak Bamba tamit di ko jàppale moom ñuy woy Bamba Rassoul Cinéma en fait non aw ma benn euh, diplôme en médecine musuma def médecine mais buñ ma joxee rôle bi déjà man na ma ci gis sam bopp parce que en plus de faj euh, day jàppale jigéen yi donc j'ai vraiment lu le rôle je me suis inclus dans le rôle et on a eu Roger Sala tamit qui est un grand acteur aujourd'hui euh, en Afrique moo ñuy coaché jàngal ñu nan la mën a waxee pour euh, justement bien intégrer ce rôle là. Euh, macha allah vraiment organisation bi nice la affaire yi gën na évoluer parce que chaque année dafay gën a dafay gën a nice vraiment. duma artiste nominé la parce que. Euh, best self made woman daaw man maa ko jëloon ren aussi ñu nominé waat. merci pour votre présence voilà man euh, en fait euh, je suis photographe professionnel. il faut il faut prendre en même temps damay euh, dama am sama entreprise buy defar ay tisane mu tudd tisania damay defar ay gingembre citron te citron ah, ataaya affaire yooyu noonu. damay def ay ah, pédicure manucure soin de visage bépp soin daal voilà di yëngu si commerce bi aussi waaw. ah mais <laughs> yàlla baax na ñu ngi ñaan yàlla jëlaat ko aussi bien sûr. Mesdames, messieurs. Ah, xale yi lu ñu féroce féroce tamit. mais attendez, ah, cette catégorie yàlla baax na. merci beaucoup c'est gentil. le rôle principal.